les terribles révélations de la Miss li mu warloo ak man yëpp euh, na ma ko jox samay oto yi ñu ci doon dégg. en exclusivité sur Dakarnet. parce que bu yàggul dara maa ngi gis seen statut ñu ngi euh, statut. benn euh, oto mais pour la Miss 2021. samedi à partir de 22h. à ne pas manquer sous aucun prétexte. comité d'organisation bi kañ nga leen gëj a dégg. ah euh, franchement gëj naa leen dégg moom. oto laay jëlee Fatick ba fii nii Dakar. au moins war nañ la jox loo xamante ni di nga ci changer comme ni ñu waxee defar sa bopp toppatoo sa bopp ah man de moom joxuñ ma ko. coow li jàppoon ma am na euh, temps sax feebaroon naa fi ba génnatuma kenn gisatuma woon fenn. li mu warloo ak man yëpp euh, na ma ko jox samay oto yiñ ci doon dégg. parce que bu yàggul dara maa ngi gis seen statut ñu ngi euh, statut benn euh, oto mais pour la Miss 2021 comment ça se fait 2021 ñu lijjanti loolu te mënuñoo lijjanti bu 2020 li ñu warloog 2020 yëpp defuñu ko ñuy lijjanti bu 2021 sama jàng perturbé wu na maa ngi doon raté ay cours sama waa école bu ñu leen doon woo sax mujj gi daan nuñu leen nangoo décroché bi ñu wootee lool sama yaay da leen ni kii dootu jël ay oto sept places di dem ba Dakar da ngeen koy envoyé passe bu doy ko ba Dakar ñu ne dama bëggee damaa tiit xale warul xaw ma nan la ko waxee vocal waaw envoyé ko sama yaay te moo doon toog si télé fu mu toog di ma tagg naan damaa yaru et ma ñëw di laaj samay ju mu tourné ne dama bëggee xale warul samedi à partir de 22h ne pas manquer sous aucun prétexte